lu jëm ci mbay mi rawatina li ñuy dëgmal muy campagne agricole bu 2024 di jaajëfal ministre bi nga xam ne moo yor mbirum mbay mi ci organisation bi gërëm it ñi fi teew ñëpp organisation yi organisation paysannes yi secteur financier bi ñëpp di leen gërëm ci seen contribution yu am solo yi ndaje bi nag am na ay ndogal yu ci jibee ñu faram-fàcce ko ci ay poñ poñ bu njëkk bi mooy li jëm ci bor bi nga xam ne nguur gi ameloon na ko ñi nga xam ne ñoo yëngatu ñi ñuy woy opérateur yi ñu yëngatu ci mbirum mbay mi ci fànn woowu jox nañu ndigal ci nga xam ne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 opérateurs yi ñu ngi koy dund te dara tegu leen ko lu dul yéex bi nga xam ne état bi yéex na koo fay bor bi ba tax ñu tegal leen ci ay intérêt ñu war koo fay ci bank yi waaye it waa lempo teg leen ci ay daan ñu war koo fayit loolu jox nañ ko ci ndigal mu dajale leen ñu waxtaan ut ci ay solution nu mu gën a gaawee ci li jëm ci wàllu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 lépp lu jëm ci mbay mi rawatina nag ceeb bi nga xam ne léeg-léeg picc yi dañ dañ ci xaw a am luñ ci yàq lu bëree bëri bëri ñu jox ko ndigal it mu war cee ànd ak jawriñ bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci encadrement baykat yi ak ki nga xam ne moo yor larme bi mu ànd ak ñoom ñu am lu ñuy liggéey ci fexe ba ñi ñuy woowee ayants yi mooy ñi nga xam ne ñoo yelloo mbir mi ñu mën leen identifier ci loo xam ne du am lu ñuy laam-laame loolu nag nañ ci ànd ak service yi nga xam ne mooy service déconcentré yi ñu jox ndigal ba léegi mu war cee ànd ak ministre des finance ak du budget ñu fexe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 waaye ñaare gis ñu jeexital bi ñu fexe ba am ay chart yu ñuy teg ba képp kuñ ñu koy jox rek mu leer ni ku ko yelloo la ku ko war a am la rawatina nag mu gën a gaawal séddale matériel agricole boobu fële ci vallée du fleuve Sénégal nga xam ne potentiel bi fa am ci wàllum mbayum ceeb ba ci wàllu maraîchage potentiel bu am solo la ñu wax ko tamit ni am na ay programme yu fi am programme yooyu ay milliards milliards dugg na ci ñu waroon ci def loo xam ne dafa jëm ci jënd matériel agricole ak def ay magasin de stockage ndax mbayum Sénégal bokk na ci li ñu gën a sonal mooy stockage amuñu capacité stockage liy yàqu ci mbay mi bëri na ak li nga xam ne ci wàllu ay euh, chambre froide la ba léegi day dugg ci stockage bi muy programme Intermac ak Sismar jox nañ ko ci ndigal ñu def li ñuy wax audit ci tubaab mooy ñu saytu ko ba xam mbir mi naka lañ ko jëfandikoo jëfandikoo ak fan la dugg ci lu jëm ci séddale bi ba léegi jox nañ ko ndigal mu ànd ceeg jëwriñ bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci coopérative ak encadrement paysan ak ki nga xam ne moo yor l'armée bi ñu taxawal ay commission yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci joxe intrants yi lënkaloo ci ak jëw li ñu nekk ci région ak département yi muy les autorités administratives waaye ñu gaawal ko ba gën saa gudd le 13 mais bi ñu ne lañ ci war a def def nañ ko ñu jox koyit ndigal pour mu taxawal ay charte waxoon nañ ko léegi yoo xam ne lépp loo xam ne lu jaaduwut la ci ni ñuy séddalee dañ ko teelal gis war koo mën a jubbanti ñu wax ko it mu xool ay euh, pexe yoo xam ne ñi nga xam ne dañ leen di jox subvention yi ñu mën koo def ci ay liste liste yooyu ñu xamal ko Sénégalais yépp ba kenn ku nekk xam ni fi mbir mi war a dem fa la dem ñi ko war a jox yépp jox nañ leen ko te amul kenn koo xam ne yellowul ko te jox nañ la ko bu ko defee subvention bi dina yegg ci baykat bi waaye du doon loo xam ne day nekk ci yeneen loxo ay nit di ko récupérer di ko jaayaat wala di ko di ko génne réew mi li jëm nag ci li ñu doon tudd léegi muy fexe ba am ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu bayee ba pare nañ ko mën a denc ba du yàqu wala ñu koy tuur ci mbedd mi joxe nañ ci ay ndigal ki nga xam ne mooy jëwriñ bi yor mbirum mbay mi mu fexe ba def recensement ànd ceeg ministre bi yor l'armée bi lépp loo xam ne lu ñu amoon la ci ay seco ak ay magasin de stockage ñu recensé ko ak ministère bu mu mun a bokk daal koy defaraat su dee am na ci ay ñoll ñoll ba